gannaaw bañu ñu sante yàlla julli ci yonentam bu tedd bi sallallahu alayhi wa ñu ngi nuy kenn ku ne sa tur ak sa jëmm di wéy ak suñu programme firim téere ñuy jàng tey matnu al arbaina annaawiya téere bu ñuy naan matnu al arbaina annaawiya fil ahadisi as sahiha annawawiya muy jàngale xadis yu wér ku ko taalif nekk muhiddin abu zakariya u yaxya bun sharafa diin annawawiya kon imam nawawiya mi ñu xam ci wàllu xadis moom moo dajale ñeenti fukk xadis ci xadis yu am solo ngir nit ki lu mu gàtt gàtt yitte mokkal ko ndax nettali nañu jële ci aliya bun abi taalib ak abdullahi bun mas'ud ak muaz bun jabal abu dardaar ibnu omar ibnu abbas anas bun malik abu hurayra abu saïd al xudri ñoom ñëpp yàlla na leen yàlla gërëm ci nettal yu bëri nee nañu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku mokkal ñeenti fukki xadiis ci xeetam bi ci ku mokkal ci xeetam bi ñeenti fukki xadiis ci mbirum diineem mu ne yàlla dina ko dekkil bésum yowmal xiyaamati mu nekk ci mbooloo ñu dégg fiq yi ak ci booloo boroom xam-xam yi ci beneen riwaaya ñu nettali ñu ne yàlla dina ko dekkil mu nekk ko dégg fiq ak boroom xam-xam ci li nga xamante ne abu dardaar nettali na ko mu ne bésum penc dina nekk ku ñu ràmm ba pare nekk ku ñu seedeel ci li nga xamante ne ibnu mas'ud nettali na ko mu ne bésum penc dinañ ko wax duggal fu la neex ci buntu alijanna yi ki nga xamante ne mooy ibnu umar nee na dinañ ko bind ci mbooloo boroom xam-xam yi def ko muy pang ci mbooloo way shahid dile boroom xam-xam yi lottal nañu xaliis bi waaye xaliis lu mu lottu lottu bu nekkee jëfee ko du danger mën nañ ko jëfandikoo tey nag ñuy jàng xadis bu njëkk muy alxadisu al awal mooy xadis bu njëkk bi an amirul muminin jëlee nañu ca bóoru julli di abu xafsin abu baayu xafs umar bun xataab umar doomu xataab radiyallahu taala yàlla yàlla mu kawe mi gërëm anhu ci moom qaala umar wax na mu ne sameetu dégg naa rasulillahi yonent yàlla bi sallallahu yal na yal na yàlla yokk xéewal alayhi ci moom wasallama yàlla yokk ko musal yokkuula mu ne kon Umar waxul nettali nañ ma dafa ne dégg naa lan la Umar dégg yonent bi wax mu ne yonent bi nee na innamal amalu mboole mu jëf yi binniyaat ñu ngi aju ci yéene yi kon doomu aadama mboolem jëf bu mu jëf rekk mënul ñàkk yéene doomu aadama nem yaa ngi ànd ak sa xel loo jëf rekk walla looy jëf rek am na loo ci jublu kon jëf yéene moo ko tabax mu ne wa innama li kulli mri'in mu ne naka bépp astan maa nawaa lu mu yéene nit lu mu yéene rek moom lañ koy fay ñaari jëf mën nañoo bokk melo te wute fay ndax ñoo bokk nuñ ko defee waaye yéene yi bokkut kon ñaari jëf mën nañoo bokk melokaan waaye sore kom ni asamaan sore ak suuf ndax lan yéene yi ñoo bokkul naka tey nit mën naa jóg ci fajar bu sedd jàpp-jàpp bu sell dem sa jàq ja moroomam jóg fajar bu sedd jàpp jàpp bu sell dem sa jàq ja ba pare mooy moromam bi ëpp ko payoo lu waral loolu ndax moom ba muy jóg ci fajar bu sedd boobu noonu jàpp-jàpp bu sell boobu noonu jóg na ndax yàlla ko sant mu jóg julli fajar jàpp na ndax yàlla moo ko ko sant waaye la tax mu jóge ca këram dem sa jàkka ja julli ngir am na ku mu dajaloon démb ne ko ëllëg fajar bu ñu dajee dinaa la jox nangam maanaam la ko yëkkati kër ga këram jëmale ko sa jàkka ja intérêt ba muy am ci yoon wi moo tax waaye du yàlla amaana sax bu nekkoon digguñu ko woon loolu wala bu nekkoon intérêt newul woon ci yoon bi moom du jóge këram di dem jàq ja moom këram lay toog julli kon moom julli na dina am tiyaabay julli ndax yàllaa ko ko sant waaye du am tiyaaba jóge këram dem sa jàq ja julli ndax lan ndax yàlla taxul mu def ko intérêt moo tax mu def ko moromam bi nag kooku jàpp bu sell ba mu jàpp ci fajar gi ba pare dem jàkka julli moom yàlla rekk a tax intere taxut moo tax kooku dina am payooru jóg julli ndax yàlla moo ko ko sant waaye dina am payooru jóge ca këram dem jàkka julli ndax ba mu koy def intere taxul yàlla dong moo tax kon ku def ngir intérêt kooku jotewul ak yàlla dara kon ñoom ñaar ñoo bokk benn jëf bu ñu jëf jëf yi tamit bokk benn melo ñoom ñaar tamit ñoo bokk benn imam bu leen jiite waaye payoor bi dafa wute ki nga xam ne jàpp na julli na waaye la ko yëkkati këram dem sa jàq ja intérêt moo tax dina am payooru julli bu mu julli waaye du am payooru jóge këram dem jàq ja julli ndax loolu jotewul dara ak yàlla intérêt dong moo taxoon waaye ki nga xamante ne jóg na fajar jàpp jàpp bu sell jul sell génn këram dem jàkka ja julli dina am payooru julli ndax dañ ko ko digal def na ko waaye dina am payooru jóge ba ba mu jóge këram dem sa jàkka ja ndax lan ba muy dem intérêt taxul yàlla dong moom moo tax waaw na ko tey nit waxtu julli jot fekk ay nit nit yaa ngi fa nit yaa ngi fa dem na jàpp dañ ko ko digal def na ko ñëw na di julli dañ ko ko digal def na ko waaye na muy rafetalee julli bi ci rukkoo yi ci sujjóot yi ak jàng bu neex ba mu fay jàng ngir nit ñi ne ko kii de ku mën julli la walla baat bi neex na kooku dina am payooru julli bi ndax diggal nañ ko def na ko ko waaye rafetal na mu rafetalee julli bi da ko def ngir nit ñi ne diw ku mën a julli la du am payoor boobu ndax rafetal boobu jotewul ak yàlla dara kooku ngir nit ñi moo tax waaye ki nga xamante ne moom nit ñi nekk fa ñàkk fa nekk la yemale dina julli ndax digal nañ ko ko te tamit dina rafetal julli bi ndax yàlla rekk a tax kooku dina am payooru julli bi am payooru rafetal julli bi kon ñoom ñaar ñoo bokk même jëf waaye payoor yi dina sore comme asamaan nu mu soreek suuf ndax lan jëfu rafetal bi yéene yi foofu dañoo wute kii da doom rafetal ngir yàlla kële di rafetal ngir àdduna kon ki rafetal ngir àdduna kooku jotewul ak yàlla dara kon jëf bu ne am na lu ko waral te loo yéene rek loolu la lay yàlla di fay mu ne fa man kaanat ku nekk hijratuhu gàddaayam ilallaahi jëm na ca yàlla wa rasulihi ak yonenteem mu ne fa hijratuhu gàddaayam ilallaahi jëm na ca yàlla wa rasulihi ak yonent bi sallallahu alayhi wa kon képp koo xam ne gàddaay na ba muy gàddaay gàddaay bi jëmul ci kenn lu dul ci yàlla ak yonant bi sallallahu alayhi wa gàddaayam dana egg ci yàlla ak yonant bi luy loolu maanaam ku jóge ci barab dem ci barab ngir diine yàlla bii sa gàddaay dara taxul lu dul yàlla waxuñu nag dem fekk ci fekk ji yàlla ci bërëb waaye gàddaay jëm dem jëfee santaane yàlla yi dafa gàddaay ngir mën a def santaane yàlla yi dafa gàddaay ngir jëfe diine bu yàlla wàccee ci yonent bi waaye mu mun koo dimbali tamit mun a dimbali yonent yonent bi bu dee bokk na ak yonent bi jamono gàddaayam dana egg ci yàlla dana egg ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam dana gërëmloo yonent bi te tamit dina gërëmloo yàlla maanaam di nga am fay gërëmloo yonent bi dinga am fay yàlla ku dimbali yonent bi ci diine bi képp ku gàddaay te yàlla rekk a tax gàddaayam boobu dina gërëmloo yàlla te dina gërëmloo yonent bi sallallahu alayhi wa bokk na ci gàddaay nga nekk ci barab boo xamante ne dañ lay fitnal dañ lay xatal dañ lay tere sax jaamu yàlla nga jóge ci barab boobu dem ci beneen barab foo xamante ne kenn du la fitnal kenn du la xatal kenn du la tere jaamu yàlla te ba nga demee tamit ngir yàlla donga tax ngir jaamu yàlla donga tax yow gàddaay nga jëm ca yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di nga am ngërmande yàlla am ngërmande yonent bi sallallahu alayhi wa ku am ngërmande yonent bi rek am nga ngërmande yàlla ndax yàlla lu yonent bi gërëm la gërëm yonent bi tamit lu yàlla gërëm la gërëm walla nga nekk ci barab barab boobu sax dinga fa mën a jaamu yàlla waaye dina des lu tax ndax yu xaraam yañ fay def caaxaan yafa nekk nga gàddaay ngir dem rawale sa bopp ak sa njaboot ndax amaana boo desee sa dëkk boobu noonu seytaane mën na laa xiir walla nit ñi xiir la ba nga nekk ci yu bon yooyu ñu nekk yow nga gàddaay ak sa njaboot ngir raw loolu yëpp yow gàddaay nga ngir yàlla ak yonent bi di nga am ngërmande yàlla di nga am ngërmande yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci gàddaay gàddaay yu xaraam yi maanaam li yàlla tere yëpp te xaraamal ko tamit nga daal ko wàcc wacc dem ci santaane yàlla yi kon yow gàddaay nga jëm ca yàlla ak yonenteem bi dinga nga am ngërmande yàlla am ngërmande yonent bi sallallahu alayhi wa bokk na ci gàddaay gàddaay bànneexu bakkanam ndax bakkan dalay xiir ci àdduna yow nag nga not sa bakkan di dina métti ci yow sax ngay des ci li nga xamante ne moom la yàlla gërëm yow gàddaay nga ngir yàlla ak yonent bi sa gàddaay dina egg ci yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci gàddaay nit ki gàddaay am am bi amam bi ak nekkam bi jëm ca amam yàlla ak nekk yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa maanaam moom yëgul boppam gisul boppam lu muy def lu ne yàlla donga tax alalam ba mu am dile moo ko liggéey moom jàpp na ne moomu ko yàllaa ko moom te yàllaa ko ko dénk da ko war a jaarale ni ko yàlla santaane doole bu mu am moom jàpp na ne du dooleem li ko yàlla dénk la ndax ëllëg dina ko rocci ruuxam dugal ko biir suuf kattan bi mu am tamit jàpp ne du kattanam kattanu yàlla ba mu def ci kattan bi yàlla def ci moom la moom lu muy dund yëpp mooy laa xawla wala quwata illa billahi aliyul azim déet pexe déet kattan lu dul ci yàlla borom bi kon kooku moom gàddaay na jëm ci yàlla jëm ci yonent bi dina am ngërmande yàlla am ngërmande yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne wa man kaanat ku nekk hijratuhu gàddaayam li duniyaa ngir àdduna yusibuhaa ba mu am ko mu ne aw imraatin walla jigéen yankihuhaa mu takku ko mu ne fa hijratuhu gàddaayam ilaa ma ilaa kooku mu ne gàddaayam ilaa jëm na ca maa la mu jëm ilayhi ci moom kon kon kooku fa hijratuhu gàddaayam ilaa maa haajara ilayhi dem na ci li nga xamante ni jëm na ci moom tey nit ki jógee dëkk sàngam ba muy jóge dëkk sàngam dem dëkk sàngam ngir ut fa xaalis lu tax mu fay ut xaalis ngir bànneexu xaalis ak li mu ci mën a def ci àdduna lu tax mu dem uti kër ngir bànneexu kër ak lu mu mën li mu ci mën a def ci àdduna mu jóge bërëb sàngam dem tamit ca bërëb sàngam uti jigéen lu tax mu dem uti fa jigéen ngir bànneex bu nekk ci jigéen ak àdduna kon kooku jotewul dara ak yàlla kooku lamu mu ci àdduna kon moom gàddaayam dem na ca àdduna bu ñu nee gàddaayam jëm na ci àdduna mën na koo am ko mën na koo ñàkk mu ñàkk ko sax moo gën a jege ndax ku jëmul ca yàlla yàlla maandu ci yow munoo am dara kon la muy def loolu yépp dafa war a doon ngir yàlla maanaam jóge ngir bërëb sàngam di dem bërëb sàngam uti xaalis na ci yéene dafa dem uti xaalis ngir dundal jab njabootam ndax njaboot lu ko yàlla dénk la te mu war koo sàmm kon bu boobaa gàddaayam dina nekk ngir yàlla ak yonent bi waaye dafa jóg bërëm sangam tamit dem bërëm sangam uti fa kër la muy ut kër bànneexu kër ak bànneex aduna taxul lu tax mooy duggal si njaboot ji nga xamante ne moom la ko yàlla dénk kon bu boobaa gàddaayam dina ne dem ci yàlla ak yonent bi wala jóge na bërëb sangam dem ci bërëb sangam ngir ut jigéen jigéen boobu muy dem uti lan moo tax ngir takk ko mën a bàyyi njaaloo mën a bàyyi foo ak dundal sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu boobaa gàddaayam euh, nekk na ngir yàlla ak yonent bi jote nag yàlla dara dina am ngërmande yàlla ak ngërmaane yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon nit looy def rek warul nekk ngir àdduna dafa war a nekk te yàlla rekk a tax waaw te yéene yomb na lu jafe mooy jëf jëf bi lu mu jafe-jafe neem dinga ci am ngërmande ak yàlla ak yonent bi rek jar na ko jëf bi lu mu yomb yomb nem doo ci am ngërmande yàlla ak yonent bi jaru ko na ko tey nga jël sa jaasi dem di jixaat am si coone amaana sa sa amaana bakkan mënoon na ci rot waaye yow loolu nga def yëpp ngir samba mais taxaw ne diw jàmbaar la ay e, après bu la nee jàmbaar la nag amaana nga ñëw sa samba ne la yow da nga doon gistal perte nga amoo ci dara sàmba mii nga bëgg mu gis la wala sàmba mii nga bëgg mu dégg la yàllaa ko bind yàllaa la bind kon bul ut ngërmande sàmba utal ngërmande yàlla ndax nga am ngërmande sàmba nit booy kontaan na doon ngir yàlla lan mooy kontaan ngir yàlla nga gis ñuy jëfe santaane yàlla yi ndax yàlla ku jëfee santaaneem mu kontaan ci yow kon yow itam nga kontaan ci loolu nga mer ngir yàlla lan mooy mer ngir yàlla nga gis ñuy wàcc ñuy wàcc santaane yàlla yi nga mer ngir loolu jëflante ya ngay jëflante nit ñi nga jëflante ñoom te yàlla rek ak yonent bi tax looy jëflante ak ñoom lu ne xoolal ndax li yàlla gërëm la nga jëflante ak ñoom xoolal ndax li yàlla gërëmul la nga daal di ko bàyyi bul xool ñu tàgg la ci wala ñu mere la ci yow daal xoolal yàlla dong moo tax nga koy def maanaam sa lisaan sa xaal ak sa xol yëpp yow yaa ngi dund laa nuridu minkum jazaan wala shukuran bëggoo si ñoom benn payoor ak benn ngërmande innama nut imukum li wajhillaahi li ngay jëflante ak ñoom yëpp ngir jëmm yàlla ji rek a tax kon xadis bii lii lañ doom jàngal nit ki lu muy def na def ngir yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi bu mu def ngir àdduna mi nga xamante ne ñun ñëpp ëllëg dinañ dem ba ko fii mu ne rawaahu soloo na ko imaamal muxaddisayni ñaari njiitu xadis yi abu abdullahi baay abdullahi muhammad bunu ismaila muhammad doomu ismaila bunu ibrahima doomu ibrahima bun muxiira doomu muxiira bun bardis ba doomu bardis da al buxaari yu bu koju buxaari wa abu al xuseyni baayu al xuseyni muslim muslim bun xajaaj doomu xajaaj bun muslim doomu muslim al xusaari an nan nay saaburi buy koju euh, nan saaburi fi saxiixi fi saxiixayhima si seen ñaari téere yi wéri allazina yi nga xamante ne xumaane ñoom ñaar as saxu ñoo gën a wér al kutubin musannafe si téere yu ñu taalif kon xadis bii boo demee ca muslim ak buxaari mu ngi fa ñoom ñoo ko solo kon mbokk yi lii moo nekkoon suñu xadis bu njëkk joxante dig daje ba si ay waxtu incha allah ñu daal di ñëw si suñu ñaareelu xadis yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu